assainissement ci kàddu yi ndax jotoon na ko jotali ñu sunu naataango le ministre euh, du commerce nekk aussi porte-parole du du di wax ne ci wàllu xeex mbënd daje bi ñu ngi ko jàppoon euh, balaa taw bi di di tàmbali xëy na dafa am lu tax ñu mun ñu report mais loolu c'était pour simplement partager ak askan bi yépp li nga xam ne président de la république son excellence Macky Sall joxe na ko comme digle mooy ñu teel a jóg loolu moo waral bi ñu dénkee ministère bi ñu ànd kook sunu naataango ministre de l'eau et de l'assainissement monsieur seriñ bay Thiam ci la ñu lancé li ñuy wooyee la campagne nationale de prévention des inondations ñu tuddee mu nekk campagne boo xam ne yóbbu nañu ci dëkk yu bëri visité nañ lu ëpp cent cinquante sites dem nañ lu tolloog lu ëpp 90 commune ci Sénégal dem ci région wu Dakar Thiès Diourbel Louga Saint-Louis Sédhiou def Kaffrine Kaolack Fatick bi ñu demee saytu liggéey bi ndax campagne boobu dafa tënku ci ñett benn bi mooy li nga xamante ne mooy impliqué communauté yi ndax tey ñi ñuy liggéeyal ci wàllu assainissement ci wàllu xeex mën na il faut ñoom aussi ñu ànd ak noog ñoom liggéey bi mu am synergie maanaam boole doole yi ndax ñoom ouvrage yi fay nekk ñoom ñoo ko mën a sàmm mais aussi ñoom ñoo mën a jàkkaarloo à d'éventuels actes de sabotage yi nga xam ne gis nañu yenn saa yi doon na am comme lu xew ni daaw ay regards yu ñuy fatt wala ay tuyaux yu ñuy dagg donc yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne dafa laaj taxawaayu askan wi à la base ñoom ñu jóg organiser wu euh, am ay volontaires yoo à la base pour nekk relais wu état beneen bi mooy ñu accompagner collectivités territoriale yi bokk moomeel yi ñu am ay plan de contingence plan de contingence yooyu mooy li leen di permettre ñoom ñu mën a planifier seeni ressources mais aussi très tôt seeni besoins ndax tey bu ñuy wax ci mbënd la ëpp ci dëkk yi ci àdduna bi collectivité territoriales yi mooy maire yi ak bopp moomeel yi la ci ëpp ñoom ñoo koy gérer seen bopp ndax ñoom ñoo gën a maîtriser territoire bi yenn jafe-jafe yi am aussi ci gox yi ñoom ñoo koy gën a xam te généralement solution yi ñuy proposé mooy gën a adapté ak réalité locale yi donc moo tax ci biir campagne boobu ak si ñaar bi nekk ñu ne dañu bëgg a accompagner collectivité territoriale yëpp pour ku nekk nga am sa plan de contingence mun a am très liggéey ba am document boo xam ne tey boo amee koom-koom bi nga mun ko jëlal sa bopp en charge boo ko amul mun nga gis bailleur bu la accompagner su aussi sa doole matewul te amuloo bailleur état bi mun na ñëw gunge la ci liggéey boobu nga xam ne danga koy def beneen bi mooy suivi évaluation bi mooy approche wu topp li état bi di investir ndax ku ne xam na ne président de la république bi mu ñëwee conseil présidentiel bi mu njëkk def mun ngi ko consacré mbiru mbiru inondation le 19 septembre 2012 mu nekk ambition bu mu am mu changé nag paradigme yi ndax bu njëkk ba inondation bi ay projet lañ koy gérer wala inondation bu jotee ñoo mànk ndox mi euh, buñ paree xaaraat déwén mu ne dafa bëgg ñu soppi doxalin bi gën a améliorer mi mu am benn programme sur dix ans am benn vision sur dix ans am ambition sur dix ans boo xam ne nii euh, gis nañ ne am na ay amélioration yu bëri yoo xam ne nii apporté na ko donc loolu aussi ñu ne nañ ko topp au niveau national lépp lu état bi def ñu mun ko xam saytu ko fi nga xam ne aussi am na ay gàllankoor ñu mun ko am xam buñ ko xamee daal di ko mën a remonter au niveau supérieur pour tey ay saafara mun ci mun ci am donc beneen bi am na ay zone yoo xam ne daaw ñoo gënoon métti ndax hivernage yu daaw si fii si région de Dakar dañ daan am ñun ay ay cumulu dakaar ci cumul pluviométrique ci nawet bi yëpp ay 300 millimètres wala 400 millimètres mais daaw ëpp na 800 millimètres mu jur nag ay dégâts yu bëree bëri bëri bëri yoo xam ne am nay zone yu gënoon métti ñu ne léegi zone yooyu aussi baax état bi tàmbali ñu partagé ko ak population bi ñu xam ne ginnaaw bu ñu dundee jafe-jafe boobu daaw am na effort yu bëri yoo xam ne nii def nañ ko ci diggante daaw ak ren mel ni Kër Massar phase d'urgence projet am na lu bëri loo xam ne andi na ko comme comme saafara ci yenn zone yi ndax Kër masaar aussi ñëpp comprendre que Euh, dafa nekk ancienne commune Kër Massar cinq kilomètres carrés la donc commune bu yaatu la même boo fay liggéey doo mën si benn at rek ndax travaux d' du lu gaaw loo xam ne day jël diir day jël temps la temps boobu aussi foog ñu di ko pour tey ñu xam ne li ñu bëgg mooy mu nekk liggéey bu sérieux liggéey boo xam après dina amal njëriñ euh, askan bi yëpp. donc loolu mooy li nga xam ne nii def nañ ko ci ay jéego ci wàllu zone de captage nga xam ne zone bu métti at mu jot danaan indi jafe-jafe ba daaw am na situation yu compliqué yu fa xawoon am ñu ne nañu jël matuwaay président joxe ndigal donc mu am ba travaux curage bi ak reprofilage bi yooyu yëpp euh, engagé nañ ko ak reprise mur du cloture bi ak renforcer capacité de pompage yu bassin bi ba nga xam ne li ñu doon dund foofu comme jafe-jafe ci ñi dëkk ci zone boobu euh, moom mun a nekk loo xam ne nii risque boobu dinañ ko mun a vraiment fexe ba ba mu ba mu néew pour mun a wax risque boobu mu bañ a amati donc fu mel ni Philippe leen aussi zone la boo xam ne dafa am euh, daan dund impact inondation donc te comme hôpital la centre de santé boo xam ne ni euh, bëri nañu fay daje di fa faju donc foofu aussi zone prioritaire la président joxe ndigal ba liggéey bi tàmbali na donc du lépp nag du mun a pare xëy na ci biir nawet bi mais li ci ëpp solo mooy tàmbali bi te bu tàmbali amee rek dinañ mën a jël ay mesures conservatoires moo xam dispositif de pompage bu ñu teg wala système bu ñu fay ba jafe bi ñu daan dund mu wàññeeku en attendant ñuy am solution bi ñu bëgg fi nga xam ne aussi mooy cité Bellevue mu nekk foo xam ne ni yàgg na dund ay jafe-jafe ci wàllu ndox bokk na si yi nga xam ne aussi liggéey boobu ONAS tàmbali na fa euh, ci wàllu assainissement bi nga xam moom la fa war a dem wala la fa war a def fu mel ni Fatick daaw dund na ay jafe-jafe yu métti ci ci wàllu ndox ci wàllu ndoxu taw ba mu am fa ay inondation bon ndax loolu aussi li koy justifié mooy lañ fa am ci taw daaw gëjoon naa am foofu ci Fatick depuis 1947. donc toll ci cent quatre-vingts millimètres de pluie loolu nag fu mu wàcc dina am lu mu jur si jafe-jafe donc ñu xam ne aussi ak changement climatique yi dafa bouleversé lu bëri fu fi nga xam ne daawul am taw léegi day am ay taw fi nga xam ne daan taw lu néew léegi day am sax ay taw yu jéggi dayoo te gis nañ dëkk yi gën a mag yi gën a développé motul euh, une semaine New York am na ay inondations yu fa am. donc matul deux semaines région parisienne am na inondation la ko jiitu un mois ci ginnaaw Lyon moo amoon inondation ñaari weer si ginnaaw Italie moo amoon inondation ba mu ay 14 morts donc loolu rek pour expliquer que du loo xam ne phénomène la bu spécifique au Sénégal réalité la bu ñuy dund au niveau international ak changement climatique yi day indi li ñu woowee ay phénomènes extrêmes mooy ay taw yu jéggi dayo yoo xam ne même boo amee ouvrage bi tey taw boobu bu ñëwee mun na ko ëpp doole ndax ouvrage yi da nga koy dimensionné donc soo amee taw boo xam ne toog nga téeméeri at amoo ko wala ñaar téeméeri at amuloo ko su ñëwee yenn saa yi dina jur jafe-jafe mais état bi jël na ci ay matuwaay yu am solo ci matuwaay yooyu aussi BNSP muy brigade nationale des sapeurs pompiers am na liggéey boo xam ne nii ñu ngi koy ñu ngi koy def au niveau national donc mu am 54 sites yoo xam ne nii jël nañ ko déjà euh, en charge donc commencé fa euh, liggéey ndax loolu la ñu identifié bu moom ci loolu am na ci 42 yoo xam ne nii. ndox mu fa demoon yóbbu nañ ko benn am na ci ñi ñi juróom-benn yoo xam mu ngi nekk en en cours de traitement des na aussi yeneen juróom-benn yoo xam ne ñoom dinañ dem pour positionner wu fa donc ci liggéey boobu aussi am na la direction de la prévention et de la gestion des inondations boo xam ne day intervenir lu bëri euh, ci réew mi yëpp bari na ay projets yoo xam ne tey dans le département de euh, Rufisque yu mel ni bassin yi ñu wax sànq nga xam ne Lac Rose daaw bokkoon na ci point d'attention yi gën a fës ci li mu dundoon daaw ci ndoxu taw bu bëree bëri bëri boo xam ne dafa demoon jur fa ay ay jafe-jafe donc am na waxtaan boo xam ne bu ñu ko seqee ak le ministre de l'eau et de l'assainissement ñu sant gouverneur de la région de Dakar ñu oo acteurs yëpp ci biir waxtaan bi ñu proposé solution boo xam ne gëm nañ ne ren dina am dina am résultat donc loolu daal laa mënoon wax monsieur le ministre xëy na ci mun a leeral ci li nga xam ne moo ñu fi dajale tey ci wàllu prévention ak gestion des inondations jërëjëf. amoon na fa ndox mu bëree bari ba nga xam ne couleur bi sax euh, changé na euh, loolu nag li ko waral mooy euh, ak lu mën a am moom dex fu mu mën a am rek dex wala géej ndox yoonu ndox dafay dem ci dex walla géej donc lag bi pour mu mën a am avant même il faut que ndox di fa ñëw ci taw bi ndox mi fay ñëw mooy ndox mi jóge ci plateau de Thiès de jas ñoom mooy aw boori Mbambilor di ñëw ak li nga xam ne moom mooy jóge Kounoune loolu moo taxoon taw bi bari na comme sama naataango ni mu ko waxee daaw daaw at yi passé fanweeri at yi passé suñ jëlee moyenne ndox mi daan wàcc ay 300 millimètres la woon 400 millimètres daaw lu mat 800 millimètres moo wàcc 800 millimètres nag fu mu wàccee il faut mu mu dem fet donc euh, léegi li nga xam ne moom moo am bi mu amee loolu président daal ne nañ ci jóg parce que dafa am. njeexital bu mu am ci ñi nga xam ne ñoo fa doon liggéey ci xorom si njeexital pour ñi fa doon def artisanat di fa def ay tableau ak yeneen ak njeexital ci hôtel yi. sama man ak sama naataangoo bi nga xam ne moo yore mbirum environnement ñu defoon benn CRD bu ñu defee CRD ak euh, ñi nga xam ne ñëpp seen xam-xam dafa màcc ci loolu ñu arrêté ay mesures waaye ay bés bii passé tamit ñu wax gouverneur Dakar mu def benn daje pour seet yan mesures la ñuy jël ci mesures yooyu ñu jël mooy. juróom-ñaari bassin maanaam ay ay ay dex artificiel yoo xam ne yi dañ koy def ñaar ci benn tool bu ñuy wax tool ñu mbajaay foofu benn titre foncier bu 43 hectares ñu am fa ñaari hectares yoo xam ne hectare bu nekk danañ fa def bassin ñett ñu def ko ci base marine francaise bi boobu boobu génie militaire commencé na def liggéey bi sax yeneen ñaar ñu def ko ci tool boo xam ne bi euh, Ahmed xalifa Niass moo ko moom mu mu mu permettre gouvernement bi ñu def fa ñaari bassin Euh, le 19 bi passé ay bés bi passé le service yi dem visité ko seet fi ñuy def bassin yi liggéey bi commencé loolu danañu xalaat ne ndox moomu yëpp ñu def ko ci juróom-ñaari bassin yooyu dana am njeexital boo xam ne bii dana ko am ci ndox mi nga xam ne moo daan dem ci Lac Rose te su fekkee ne jar na ko tamit am na moto pompe bu am doole boo xam ne bi dañ koy am danañu permettre aussi ñu pomper yenn ndox mi ci Lac Rose yóbbu ko ci géej gi waaye comme ni ma ko waxee euh, niveau géej gi moom moo sut niveau Lac Rose donc loolu moo doon problème bi parce que Lac Rose a un niveau inférieur à la mer merci beaucoup jërëjëf.